lecture par rapport à la délégation de de de de de bi nga xam ne moom moo dem ci Daaka bi. ñenn ñoo fa nekkoon. dama def lecture ci loolu. waaw ah. euh, ña fa nekkoon mooy les responsables ñoo Abdoulaye Daouda Diallo les présidents d' institution. waaw ah. ak euh, ak ñenn ñi. mais depuis la nomination de Diomaye c' est normal je crois. voilà moom laa wax te non je ne parle pas de la délégation de l' APR. bi demoon ca Daaka ba ñi ñi ñi président yónni woon délégation ñu dem ca Daaka ba. soo ci defee lecture da ngay gis ni par exemple. Amadou Ba mi nekkoon candidat bi bokk ci. nekku fi non Amadou Ba nekku fi. n'est-ce pas nekkul Sénégal. wala ñi nga xam ni ils étaient proches de l'entourage de Amadou pendant la les élections présidentielles bokkuñu ca. ñenn délégation bi ñan ak ñan la woon euh, Adama Fall s'il te plaît. du dëgg. non non dama a xam a. waaw non c'est-à-dire euh, Farba Ngom euh, Mame Diop Abdoulaye Daouda Diallo c'est-à-dire. Mansour Faye. Mansour Mansour Faye. Euh, Mansour Faye il était dans la campagne. non c'est-à-dire moi je parle de ñi parce que Amadou ñi ko doon accompagner c'était les maires c'était y en avait waaw moom laa la ñi ko doon accompagner dans la campagne gis naa ni bokkuñu ci délégation bi maintenant est-ce que loolu nit ñi duñu defee lecture duñ jàpp ni seen biir donte yaa ngi wax nag ni amul problème seen diggante ñoom ñaar problème de dama ne man bu amee problème tamit lijjantiwuma problème boobu mm-hmm. dama am bu fekkee parti bi amul discipline man am naa discipline sama bopp pour parti bi donc jox naa ñëpp cër man dañ ne parti bi amul discipline mais quand joxante nañ cër am na détails yoo xam ne du ci dugg nit ku nekk ne yaa war a xool président Macky Sall fa mu toog peut-être que dina am temps wu xoolaat bu baax entourage bi ko waroon li mu ci mën a changer mu changer bi ñëpp a baax ah ñëpp a baaxoon. Hmm. waaw. c'est vrai que changé na nag délégation bi changé na fa mu toog mi ngi réfléchir mi ngi noppalu ko mi ngi xalaat dama koy ñaan moom réfléchiraat bu baax ci ñenn ñi ko gënoon jege. Hmm. bokk nañu ñu ko gën a yàqal ci parti bi laa parti APR hmm. am na ñoo xam ne nii Fallou moom kenn du jël téléphone ñaata yoon la leen ko wax. Hmm. dinañ wuyu seen téléphone yi dinañ wax nit ñi mais am na ñoo xam ne mënuñu jël téléphone. non léegi moom 12 ans jëluñu non moom mooy léegi non non dama ne non non si si non dama ne gis nga nit buñ la falee da ngay boo fàttee ñu la xoolal nit boo buñ la falee boo fàttee ñi la fal da ngay folleeku ah. politique dafa am benn durée la rek bu du yàgg du dëgg am na ñoo xam ne nii dañ nekkoon ak yow depuis 2012 avant 2012 ñoo nekk ak yow nga xam ne ci fulla ak fayda di liggéey ak ñoom ñu ànd ak président Macky Sall ba tey jii ñu wàcc boo leen woo téléphone leen jël duñu la woon jël. Mhm. te président toog nañu pale ba taay mooy leen di leen wuy seen téléphone di ubbi di jege askan bi. wax nañu ko ba taay mais dañoo nanguñu ko woon dégg. moo tax may ñaan président Macky Sall fa mu nekk na réfléchir bu baax ci loolu parti bi am na ñoo xam ne ñu ngi fi am nañ di gëm nañ ko. te amana sax amuñ ci dara. te moom lañ gëm. na dooleel ñooñu ñu jël ñu jël parti bi liggéey. tout à fait y a des jeunes. a des jeunes yoo xam ne nii ñu ngi ci ci parti bi. renouvellement. renouvellement defaraat parti bi. y a des yoo xam ne ñu ngi fii. dama am question bu ma koy laaj. xaaral dem foofu. balaa muy dem.